asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ngi nuyu ñi ñu nekkal ñëpp saal bi journaliste ak ay leader politique yi fi teew kàddu bi nag dama ko jël ci mouvement FTD du de la défense de la démocratie Euh, ma bokk ko ak maam Biram Waaj ak euh, Serigne Saliou Guèye ak Babacar Mbour ak euh, maam nu mu tuddati Salma Ibrahima Fall ak Maymouna Boussa ñoom ñooñu lañ ko bokkal ak ñeneen ak ñeneen li ñu tax a jóg nag mouvement boobu bëri na ñuy wax sax mouvement journaliste la mais du mouvement boo xam ne journaliste yi rek la parce que journaliste yi rek moomuñu mouvement boobu parce que man mi maa ngi ci biir te duma journaliste ak ñoom Babacar bu bëri na ay journaliste yu ci nekk mais li tax ñu jóg rek mooy ñun ay nit lañ ñoo xam ne ñu ci ëpp ay ñun xam nañ ñu ci micro yi ñuy wax mais réew mi dafa toll koo xam ne Euh, kenn ku nekk da ngay fekkee da ngaa nekkoon ci ay bureau wala sa néeg wala sa place réew mi dafa toll koo xam ne ku nekk da ngay jóg fa nga nekkoon nga ñëw taxaw ci pénc mi ñu ànd xeex li ñuy xeex pour Sénégal mën a continuer di nekk fa mu nekkoon loolu nag moo tax FDD sosu donc ñun ñi ci nekk ñëpp loolu rek moo ñu yëkkati ñu ciy woo samedi am nañ manifestation terrain Grand Yoff euh, à 15 heures mooy nekk commencement bi ñu ngi ciy invité euh, leader politique yëpp candidat yi ak euh, njiitu mouvement yi fi nekk yëpp ak journaliste yëpp parce que tey jii sax dañoo amoon conférence de presse mais comme dañu yëg ne ñii dañuy def te yaakaar naa ne boole doole yi ci lañ war a toll mais kenn ku nekk warul beru fële di def sa yëfu bopp nii nga xamee ne candidat yi dañu boole seen bopp euh, noonu la mouvement yëpp war a boole seen bopp ba ku woote ñëpp ñëw ànd ak yow pour li ngay def mën a réussir parce que li ñuy soxla du ndamu benn nit du ndamu ñaari nit mais ndamul <coughs> réew mi lépp la euh, li nga xam ne dinaa ko si waxaat rek euh, mooy wax ak sénégalais yi parce que tey mën nañ woote manifestation kum neex nga toog mën nañ woote ville morte nga génn dem ne bokkuma ci waaye démb ak bërki démb rek ku dem Guinée ville morte am na fa par force parce que nit ñi sécurité bu ñu génnee sax dem liggéey yi amatuñu ko boo demee di liggéey sax li ngay liggéey mënatul a tegu ci dara parce que amuñu li ñuy wax état comme nag ñun leader yi ñu yàlla jox ay visionnaire lañ xam nañ ne kat fii Macky Sall jëm ak réew mi nit dina fi bëgg génn këram du ñemee génn nit dina fi bëgg a liggéey du mën a liggéey nit dina jënd conteneur indi fii ci port bi dootu ko gisati dara du ko ci fekk laataa loolu di am nag dañuy boole suñ doolee ñun sénégalais yi ànd xeex lii nga xam ne moom la Macky Sall di woote ci réew pour mu jóge fi li nga xam ne moom laay dolliwaat loolu laay wax sénégalais yi xeex bi nag yàlla def na ñun ñëpp ay sénégalais lañ mais dafa am ñoo xam ne li ñuy wax akarabul awla ay leader yoo xam ne ñoom ñooy candidat yi muy dix-neuf personnes kenn ci ñoom mooy nekk président Sénégal incha allah ñooñu nag comme nangu nañoo boole suñ bopp seen bopp ñun militants yi nga xam ne dañu bokk ci parti yi ak ñi nga xam ne ay sympathisants lañ ak ku mën a doon il faut ñu booloo ñun suñ bopp comme ni leader yi boole woo parce que tey benn leader rek bu génnoon rek day may doole Macky Sall bu ñu dajee fenn di woote manifestation wala di woote meeting ñu naan kii moo wax lii kii moo wax lii sama leader ñii di yuuxu kii ñii di yuuxu kee leader yi ñi ngi defar mais militants yi ñi ngi yàq il faut ñu bàyyi xel loolu ku rusuta ñëw ànd ak sa leader waroo rus jox ko gëdd gëdd bi nga jox sa leader donc loolu laay wax leader yi tamit ëpp ma leen xam-xam gënuma leen a xam réew mi mais dinaa leen baaxe dara mooy ngeen gën a boole seen bopp Macky Sall kum ci def visite biir kër lankal kum ci woo public lankal parce que li mu bëgg mooy dina def le tout pour tàqale leen loolu nag yéen a koy bañal seen bopp pour gën ñoo may doole ñun ñu topp seen ginnaaw parce que man euh, euh, dialogue am bii mu doon woote ci démb defe naa ne lu nekk lu gën a nekk yëpp senegal amul mooy nga am sa ñaari soxna problème am ci kër gi nga ne pour ñu régler problème bi dañuy dem jëli ex yëpp ñu ñëw bokk régler problème bi loolu la leen bëggoon a def ngeen xam ko làkk moom nag jaral na ko nag bëgg na réunion ba faral ko mu bàyyi soxnaam yi dem di réunion ex ya man nag boo réunion ex yi ba noppi boo ñëwee noo koy doxale ci biir kër gi laa xamul li ci des mooy lii muy def lépp bu leen mës a dugal seen bopp ci ne Macky Sall day dem la 2 avril li muy wax naan mi ngi koy mi ngi koy wax ba muy wër réew mi naan damay def cinq ans du ma def sept ans est-ce que ba mu jotee def na ko lan la Macky sàll ma a dig askanu Sénégal délai ba jot mu respecté ko le 2 avril Macky Sall dafa bëgg a xool ba xam la 3 bu xëyee nan la dëkk bii mel su nooyee day continuer toog ci réew mi jaay doole nit ñi xam nga ne pardon benn baat bu demee ba naan daaka ji mooy tax mënumaa jàpp ma ne euh, élection yi waa bërki démb ban président moo fekk yi daaka mu ne dagg leen daaka ji parce que corona dafee ñëw du Macky Sall kon bu demee bay taafantaloo daaka tey xam ngeen ni dafa am lu nekk ci boppam te waxu ko Macky Sall foo mun a fi gàmmu Tiwaawoon foo mu fi daaka foo mu fi màggal yi foo mu fi ngénte yi ba sax aaye fi nit ñi ñu suul seen i do seeni i mbokk